jaajëfal leen ci ànd bi ngeen di ànd bokk ñun mbokk internet bu 5M TV Sénégal jaa ngeen jëf ci teewlu bi. jaajëfal nañ leen mbokku internet yu 5M TV Sénégal amati mbégte ak bànneex di ànd ak yéen di leen dégtal xibaar yi léegi seen chaîne bi la ci gën a fës wàllu politique lañ koy daal di ubbee kàddu yi nga xam ni kon njiitu groupe parlementaire bu coalition Yewwi Askan Wi lee di biram Souleye Diop daal na koy wax ginnaaw kàddu yi nga xam ni kon docteur Diallo Diop yëkkati na ko jëm ci plan B bi nga xam ni nësër nañ ko nag jëm rek ci élection présidentielle 2024 yi lee ca noone ku ni mu ni duñ ko rek tayee di wax moom biram Souleye Diop ginnaaw gi kon ñoom am nañu rek candidat te candidat boobee mu nga tudd Ousmane Sonko biram Souleye Diop ak i tamit ñamu àndal ñu am yaakaar ni kon ñoomee dinañu bokk rek ci élection présidentielle yu 2024 yi lee te kile di Ousmane Sonko itam askan wi moom la ñu woote moom la ñu bëgg ngir rek daal di koy tànn mu nekk rek seen président wu Sénégal ginnaaw googee kon mu ni njiitu réew mi bu mu sax seet fu sore ginnaaw nag lu jëm ci li nga xam ni rek moom lañuy indi ci wàllu candidat mu ne nag lu jëm ci wàllu politique ba tey ñoom xam nañ ni kon patriote yi taxaw nañu temb rek ngir am def nag li nu mel ci mbir moomee tax na fi mu nekk ni kon mbir mi amul jiixi jaaxa ñoom booloo nañu rek taxawal kile di Ousmane Sonko ngir samp ko nag mu nekk seen mbër ci atum 2024 Guy Marius Sagna mel ni ku koy daal di faylu waaye la mu ñaaw lu bokk na ci kon jàpp bi nga xam ni jàpp nañ ko Ousmane Sonko waaye itam rek jafe-jafe yi nga xam ni mu ngi koy daal di dund jamono ji jëm ci wàllu wér-gu-yaramam mu ni Ousmane Sonko moom mi nga xam ni askan wi ñoo ko bëggal seen bopp ñu jël partem bile daal di ko fiy jëlee jàpp ni itam kon moomee eh, fi mu nekk nii nañ ko xalaatee ni kon Pastef coup d'état rek lañ ko daal di def waaye nag moom Guy Marius Sagna la muy sàkku rek di ko wax saa su nekk rek ñu bàyyi ñi nga xam ni politique rek moo moo tax ñu tëj leen waaye itam bàyyi kile di Ousmane Sonko. dañuy àddu rek kon ci tontu bi nga xam ne Ismaïla Madior Fall daal dina koy indi ginnaaw waxtaan wu mu sekkoon ak magazine bi di Jeune Afrique moom jëwriñ bi ñu denk wàllu yoon Ismaïla Madior Fall daal nay tontu kon jëm ci mbiru usmaan Sonko di wax ni kon Ousmane Sonko jàppee wuñ ko jëm rek ci mbiru viol leneen itam kay lañ ko daal di jàppee ginnaaw googee nga xam ni sax moom. daanoon nañ ko ba pare jëm nag ci wàllu contumace ndax moomee fekkewul sax bañ koy daal di daan kon lan moo waral ni kon moomee waru woon taxaw ni kon ab prisonnier la waaye loolee fësalu ko benn yoon moom Ousmane ko sax nag moom dañ ko rek placé woon ca résidence ginnaaw gi nga xam ne rek ñaar fukki fan ak juróom ñetti ci weeru ma daal di nañ koy nag indi file ci ndakaaru ginnaaw gi mu daal di koy bàyyi ca këram ay fan nag sax nag Ousmane sonk boobee ñu daal di koy tëj ay policier di ko garder ginnaaw nag li nga xam ni moom mooy amul woon mandat jëm ci jàpp boobee waaye fi mu nekk ni nag moom ci beneen mbir kay lañ ko daal di jàppee jëm na nag ci li lee di insurrection waa itam ab ci rek jëm ci wàllu téléphone portable noonee kon moom mu ni Ousmane Sonko lu tax rek fësalul boppam jëm ni kon moomee ab prisonnier la wala itam rek jamono joojee nga xam ni jàppoon nañ ko moom lan la waroon na rek fësal ak lan la itam waroon a wax dañuy desandi ci mbiru Ousmane Sonko aboka ba koy layal di maître Ciré Clédor ma ngay woote wallu gouvernement wu Sénégal di wax ni kon war nañoo jug jëm ci mbir mile Ousmane Sonko jamono ji daal wàllu wér-gu-yaramam ma ngay xëy di leen jaaxal saa su nekk te nag loolee ñoom war nañ cee taxaw ndax nag déficit cardiaque la ñuy nemmeeku jëm rek ci Ousmane Sonko ndax boo xoolee ca wetu càmmoñ bi dara doxatu ca mu ni loolee itam lu doy waar la moom Ousmane Sonko fanweeri fan ci weeru u bile nemmeeku nañu kon la muy dund day gën di tar foofee ba na autorité politique yi lu jëm nag ci tam ci administration pénitentiaire fonctionnaires yi ak itam juge d'instruction yi ñoom sax yëg nañ ko ndax ñoo fësal mandat dépôt bi ginnaaw nag lu jëm ci détournement bu procédure bu procureur république euh, daal di fësal jëm rek ci arrestation manam ci jàpp boobee kon nag loolee war nañ cee taxaw bu baax a baax fi mu nekk ni kon doyen des juges war a wax ci mbir mi jàpp bi waaye itam war a wax itam ci wér-gu-yaram Ousmane Sonko jamono ji la muy dund foofe ca réanimation ndax nag docteur yi ñoomee ña ngay def seen kéemtalaay kàttan ngir mën koo jàppale waaye mu ni moom lu jëm ci wàllu philosophie ak tamit ci xel ak xalaat jëm ci wàllu yoon loole nag waruñu ko rek taxawee benn yoon dañoo war see jug nag bu baax a baax waaye fi mu nekk nii ñu mel ni rek ku gumba taxlu mbir mi waxuñu ci dara boobook léegi rek ndax Ousmane sonk kon bu ñu moyuwul mbir mi dina gën a tar te booba itam droit international dina ci daal di am yoon te dina ko daal di bind mbir mi nag ñu jeexal ko benn yoon ginnaaw li nga xam ni moom la yëkkati daal di koy jagleel njiitu réew mi Macky Sall mu xamee ko loolu ak jëwriñ bi ñu denk wàllu yoon ak i seen tamit seen xam-xam ak seen xalaat ci mbir mi ni Ousmane Sonko kon ay jafe-jafe lay daal di dund bu baax a baax te loolee war nañ cee taxawul